coow lu bari moo ci daal di topp ki yor kàddu gouvernement bu Sénégal eh, ci antenne France 24 mu daal di ci andi ay leeral. le président de réew mi nga xam ne nag daanaka moom la ñu sas kaaraange eh, bépp constitution ci réew mi dafa seet rek ñagas ñagas bi dox ci diggante assemblée nationale ak conseil constitutionnel ngir eh, daal di toxal lii di élection yi ma yaakaar nag ne waruñu ko imposer benn bis bu ñu nar a amal yooyu élection. ñu daal di koy dàq wala ñu daal di koy amal fi ak as diir Abdou Karim Fofana lu leer nañ la daal di bëgg soxal plénière bi nga xamante ni pencum ndaw réew dañ koy amal tey ci altine bu ñu sukkandikoo ci moom du benn yoon ngir andi ay coppite ci chartu ndeyu réew mi. soppiwuñu dara ci constitution bi. groupe opposition bi la ñu sàkku mooy ñu def dérogation. soxal wàllum processus électoral bi ndorteel gi ba léegi ñu bari dañ koy daal di joxoñ baaraamu tuuma rawatina ñi fare ci kujje politique bi bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag ab loxo bu nëbbu bàyyee ko ci gouvernement bi fi nekk moo jur yile jafe-jafe. ci 49 yi nga xam ne dañu gàntaloon seen candidature am na ci ñoo xam ne dañu sakku woon ngir ñu toxal élection yi mu am ñeneen ñoo xam ne dañu ŋaññ anam wu ñu leen génnee ginnaaw ba ñu amalee lii di euh, parrainage yi. léegi nag ak ndorteelu processus bi euh, delluwaat gannaaw mënta ne lenn rek moo fi sës. jubluwaay bi nag nekkul na dañu bëgg a niilal élection yi waaye dañu koy toxal su ko defee ñi yëngu ci wàllu politique ñu mën a déggoo la. pencum ndawu réew mi bu ñu sàndee seen xob ba daal di pare ci la ñuy daal di am ay xibaar yu yees soxal naka lañu ñu war a def ba daal di génn ci la jafe-jafe.